Euh, économique euh, wàllu politique ak euh, koom bi nga xamante ne fës na lool ci tournée njiitu réew mi Macky Sall naka la ko analyste politique yi jàngate Walf Quotidien xëy na ci jox kàddu ñenn ñi Walf Quotidien yi tamit taxaw ci dogal gi nga xamante ne moo tukkee ci cour de justice bu CEDEAO mi sàkk woon ci nguurug Sénégal ngir mu teggi fi li nga xamante ne mooy loi gi ñeel wàllu parrainage kii di maître Abdoulaye Tall kii di maître Abdoulaye Eh, kii di avocat bi nga xamante ne moo ci addu tey tamit bokkon ce ña yóbbu woon googule kayitu kalaame eh, moom jot na cee janook eh, taskatu xibaar yi démb xam le ne senegal bu deful ndànk ay dan mun naa tegu ci ndoddam bu deltul ginnaaw ci googu lépp dogal Euh, mu ngi ci Walf Quotidien yaa dikkoon euh, ñu gën koo xam ci Babacar euh, Diop mi nga xamante ne dafa ricc woon ci kaso ci jamono tey ñu bëri jaare nañ fa ricc ci kaso ba ci mbirum Boy Djiné nga xamante ne fës na lool ci jamono ji moom la wal fu Quotidien xëyee yéen a kaabi di le témoin maître Kidi njiitu réew mi Macky Sall ca Kédougou gamu gontu démb tournée politique gam fa yamal jëm ci wàllu koom bokk na ci ne la mu xamle moom ne daal tournée tournéem yooyu le du ci wàllu politique waaye nag comme la gën a fës ci jamono ji ndax foofee ca Kédougou jot na fa inauguré hôpital bu bees gamu dupe ndem si yàlla Ahmed euh, Dansoko euh, foofee ca Kédougou jot na itamit nemmeeku euh, sànci nguur gi tàmbale ci yoonub Kédougou jàpp Salémata mu ngi ci la témoin yéen a kaabi di l'info ne tournéem googule daanaka demb Sénégal dund na ci lu métti métti accident goo xamante ne ay liggéeykatu leeral site googee am nañ ko ca yoonu Kédougou ba ñett ci ñoom ñàkk ci seen bakkan ku mel ni abu Mamadou taska taskatu xibaar fala fato yoro Mamadou Diallo di caméraman ak Ousmane Ndiaye di chauffeur ci Leral TV ñoom ñetti ñi leen seen bakkan rot na ci yoonu Kédougou gannaaw seen woto baak Eh, na mu mbëkkanteeg eh, ab camion foofee yoon ba yéen a kabidi di quotidien mu ngi ñu dektal tournée bu njiitu réew mi eh, Macky Sall ñetti liggéeykatu leeral point net ñoo faatu ci accident goo xamante ne dab na leen ci yoon wi njiitu réew mi Macky Sall ci saa si la fa dem sàkku na itamit ñu bi tepp enquête enquête ca na mu gën a gaawee ñaar ña ca gaañu gaañu Eh, yóbbu nañ leen eh, ngir ñu mu leen a faj ci avion militaire eh, li quotidien moo ñu ko yëggee réew mi quotidien ci xëtam bu njëkk accident gu métti métti goo xamante ne ñaari reporter bu leeral ak benn chauffeur faatu nañ ca mbir yaa amee démb ci suba si foofee ca yoonu Kédougou ab caméraman goo xamante ne daanaka na mu faatoo ak ña ca des doon lu doy lool Eh, foofee ca yoonu Kédougou réew mi quotidien taxaw ci mbirum Boy Djiné mbiri ca kaso la mu gis moo ne daal kaso yi kaaraange eh, amu ca mu ngi ci réew mi eh, quotidien yéen a bi di Source mu ngi ñuy dégtal euh, drapeau taskatu xibaar yi démb sëngéem na ndax euh, tiis gi nga xamante ne moom la taskatu xibaar yi euh, xëyee démb yendoo ko xëyewaat ko tey muy génn paduna ñetti liggéeykatu leeral point net yéen a cabinet ña ca amee gaañu gaañu bokk na ci Aminata Sow ci jamono ji mu ngi ci tolof tolof yu métte métti ak keneen koo xamante ne Thierno Ndiaye amee na gaañu gaañu ci googu lépp accident waaye nag accident googee nañu jàpp ne ñetti bakkan ñoo ca rot mu ngi ci source a yéen a bi ci xëtam bu njëkk leeral moom euh, ba tey rongoñ ya feragul foofu taskatu xibaar yi ne ci dej yéen a bi ne ñett liggéeykatu leeral TV ñoo ñàkk seen bakkan ci wotoop euh, camion gañu mbëkkanteel euh, ca yoonub Kédougou bàyyeekoo Tambacounda doon jëm ca Kédougou ngir mun fa jiitu njiitu réew mi Macky Sall ci tournée gam fay amal njiitu réew Macky Sall la dakkal bépp mbumbaay ci googu lépp tournéem ca Kédougou ni ki démb moo ñu ko yëg. déggee yéen a di critique ci xëtam bu njëkk suñu ñetti naataango yoo xamante ne eh, faatu nañu dem ci accident amoon yéene dem couvrir ji eh, tournée bu njiitu réew Macky Sall foofee ca Kédougou eh, yéen a kii bi ne njiital leeral point net di Dame Dieng njaboot gu ne ca loru jox na leen benn million bokk na ci tamit ñaa faatu ci googule accident atum lem moo leen ameel salaire maanaam payoor njiitu réew mi Macky Sall yi tamit. Euh, métitlu na la xew euh, ci googu lépp euh, accident foofee ca yoonu Kédougou l'observateur xëy duñu leeralal la tukkee démb ca yoonu Kédougou ak ñett ci ay liggéeykatu leeral point net faatu ci accident gu métte métti bokk na ci tamit Eh, kenn ka di taskatu xibaar abu Mamadou Sy eh, chapeau ga mu mujjee envoyé mu mujje yonne rédaction démb ci suba teel ngir tënk la mu jot a taataanagum eh, ci googule tournée laata mu yegg ca kedugu ka ca des sax ma nga woon ci yoonub takk soxna bu weesoo tournée ñu doon amal foofe ca Tamba jàpp Kédougou yéen a kii abidi 24 ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal élection locale yi eh, coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi yëngu ci jamono ji ci waxtu googule eh, opposition bi ku jeeg politique bi kenn déggu leen ci ay communiqué la ñu ñaxtoo ci jamono ji ñoom ñëpp ne selaw mu ngi ci 24 heures yéen a kii abidi l'évidence mu ngi ñuy dégtal tournée bu njiitu réew mi Macky Sall ca Koungheul maire ba di Mouhamad Dieng moom mobilisation ba. Euh, fës na ca lool bu dee nag ca Diourbel euh, directeur bu course bu Bambey Moustapha Guèye euh, fësal ne candidat lay doon ca ña war a dagaan baatu askan wi ngir doon maire ca Diourbel mu ngi ci l'évidence yéen a bi di Sud Quotidien élection locale yeeg euh, coalition benn Bokk Yaakaar euh, benn liste euh, gi mu ne moom lañ ci fas yéene jëmmal bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiitu réew Macky Sall ndax ñu soobu nag ci investiture yu nar a doy waar lool ci ak googule coalition benn Bokk Yaakaar mu ngi ci Sud Quotidien mbirum Ousmane Sonko njiitu réew mi Macky Sall ak ki tamit tournée gamuy amal ki di kase adduna ca. Euh, yéen bi ne bokk na ci li xalif général de Mourides wax ci ndoddu Ousmane Sonko waxal na ko bépp woy politique euh, bokk na ci tournée ga njiitu réew mi Macky Sall di amal euh, dem na nemmeeku ji li askan wi dund ci itamit ci gox yu bëri yi ci Sénégal alerte quotidien mu ngi ñuy degtal waa gi ñeel wàllu parrainage Eh, te cour de justice bu CEDEAO jëloon dogal ngir mun a itamit sakkoon ci Sénégal mu teggi ci lu mu gën a gën a gaawee google loi parrainage ndax dañoo gis ne gàllankoor la ci wàllu politiku Sénégal maître Abdoulaye Tine mi janook eh, taskatu xibaar yi démb eh, xamle ne ay daan yu mette metti mun naa tukkee ci CEDEAO tegu ci ndoddu Sénégal bu fekkee ne fileeg juróom benn weer Sénégal jëfewul càkkuteefu cour de justice bu CEDEAO yéen a tribune ca la desandi nguurug Sénégal ba léegi jotuta sàmmonteeg dogal googule eh, bokk na ci daan yu métti métti mun eh, tenku ci ndoddu Sénégal eh, bu ñu sukkandikoo ci maître Abdoulaye Tine mi janook taskatu xibaar yi Uh, fàttaliku nañu demb ndem si yàlla Ahmed Dansoko ma ñu tuddee hôpital bu Kédougou yéen cabinet njiitu réew mu ubbi bees uh, hôpital mu ngi ci turbine yéen ka bi di loo soleil kaddu yu fi jib eh, jëm ci tamit eh, ab bato goo xamante ne eh, nguurug Sénégal jënd na ko bees lu waaju ci bato googe ñu tu ñu duppee le Fatick bokk na ci nguurug senegal mu ngi ko jënd ci weeru sulet atum 2017 njëg maa ngi toll ci juróomi milliards ak yu toftal moo fa wutu si ñaar nga xamante ne màggetaayam lool jëmoon sax ba jaaxal ñu bari lépp ko waral nag lu ko waral mooy li fi xewoon ci nganuk Barack Obama. 1 euh, ci atum 2013 ñu gis ne waroon nañu jëndaat euh, bato geneen euh, gi dox ci diggante Dakar ak gore ak feneen ak feneen mu ngi ci le soleil Dakar Times xëy waxtaan ak ab soldaar gawoon woon eh, ca Gambie gis ne njiitu réew ma woon di Yaya Jammeh eh, bëggoon na sànq eh, ñeent ci ay kilifa yu Sénégal bokk na ci maître Abdoulaye Wade ak Karim Wade ba ci Samuel Sarr ak Abdoulaye Baldé ak ñeneen ak ñeneen bi mooñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk direct news mu ngi ñuy dégtal campagne gu ñu jagleel ñàkk yi ngir xeex mbas mi di coronavirus yëf ya nag nu mu tàmbale woon ci mobilisation. mobilisation ñaax askan wi daanaka tàbbi na ci géej échec daal lañu ñu gis ne moo am ci googule campagne nationale mu ñeel vaccin yi jëm ci xeexum mbas mi yéen a bi di enquête mu ngi ñuy dégtal euh, kàddu yi fi jib euh, fan yi tukkee ci kuréelu syndicat gi boot liggéeykat ya ne ca crédit mutuel euh, bu Sénégal joxoñ baaraamu tuuma ña jiite googule crédit mutuel ne ñoom ñëppay ñoom ñekk ñoom rek ay cëru ci googuleep crédit direction ba nag contre attaqué na weddi na tuuma yooyu le bu ñu sukkandikoo ci seen janook taskatu xibaar yi mu ngi ci enquête libération ne amatina liberté booy jinne dematina ricatina kaso jot na sax wax lu yaatu ca nañ ko tegee loxo te awul ci yoon ah, fitnaal ak métital ga muy dund ak itamit la mu jot a diisoog ñi eh, yilif eh, kaso yi ah, fa mu ne woon moom Boy ne newatu fa Euh, libération xëy ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk lu aju ci euh, sujet googe ñuy joxe te mu ñel mbirum góor jigéen euh, ci examen blanc gu ñu doon amal foofee ca Tëngéej yéen cabinet du Goulet mosoon nañ ko fa jëmmal ci atum 2012 ca lycée Abdoulaye Sadji mu ngi ci libération yéen cabinet di stade ci xëtam bu njëkk mu ngi ñu dektal match xarito yoo xamante ne ñu ngi koy xaar Sénégal war ci jublu bokk na ci ci yooyu les match xarito sax Sénégal war na cee mun a euh, feggoog Zambie ak Cap-Vert euh, lu jëm ci wàccaay gi Aliou Cissé ban tactique lay taxawal ban système Aliou Cissé ndax day taxaw ci 4-4-2 wala boog 3-5-2 laaj legu samp mu ngi ci stade suñu làmb moom xëy na géwél bombardier euh, bu mbuur mi dànkaafu Balla Gaye 2 ne Balla Gaye bu sañee rek déggal boppam taxaw Euh, combat googe du weesu ñaari minute euh, bombardier wax ci suñu lamb yema fu ñu jeexale xetu yéenekaay yi tënk la incha allah daañu ci dikkat